télé bi bégal secret Adam lan la ba niveau bi dafa gën a élevé à chaque fois rek niveau bi day gën a yéeg lan mooy secret Adam président secret Adam tour bi la alliance pour le développement et l'amélioration des races dafa wuyoo tuuram rek parce que Adam dafa Euh, boole ay éleveurs yi nga xam ne ay sélectionneurs la ñu ay améliorateurs la euh, ñu donc ñu jouer seen rôle pleinement nag di gëstu di gëstu di xuus ah lu ñu am xeeb ko ba ñu am lu ñu am lii donc euh, secret bi amul leneen du loolu ñu nangu booloo nag nangoo liggéey te nit ki moom soo takkoo nga liggéey yàlla fekk si la je pense que Adam loolu mooy secret bi. parce que quand même bi ñu ko créé c'est en 97 euh, comme ni ma wax sànq ñu nekk une vingtaine de personnes tey ñu nekk presque mille euh, donc ça veut dire am na jéego yu yu mag yu ñuy daw ba pare concours yi mu ngi nii depuis dix ans ñu ngi koy def te wax fa dëgg yàlla concours yi joué na si bu baax a baax si amélioration euh, race bi parce que mun naa wax bu loolu du concours yi tey jii du ñu egg fu ñu egg parce que concours yi moo ñu permettre ñu évaluer pour xam fan la ñu toll pour xam lan la ñu war a liggéey tey jii di nga gis nit ku ñëw jënd yor ay formelam yor maalam di liggéey muy xëy mais damay changer dugal beneen maal mais maal boobu muy dugal day xam moom lan la manqué la mu indi maal boobu mu mottali li mu manqué la mais loolu lu koy lu tax mu maal boobu mu ko mu wóolu ko ba du koy dugal c'est parce que maal boobu dañ ko évaluer dañ ko natt ah wala mu bokk ci benn ligne bi nga xam ne euh, moom dafa am fu ñu foor te yow fu ñu foor foofu loolu nga soxla donc en quelque sorte euh, loolu ñu waral euh, loolu waral ñu toll niveau bi daal. loolu am na solo président président wax concours wax coow président yan matukaay la ñuy jël pour concours bi bañ a am coow ndax nee nañu Adam moo fi dàq natt concours am toujours rek natt yu jaar yoon lay lan mooy secret bi lan lañu ko war a gérer ba nga xam ne rek du am benn coow léppay jaar. waaw euh, comme ni ñu wax rek Adam am na règlement. am na discipline euh, te dañuy fexe appliquer discipline bi te loolu dañ ko appliquer si ñun ñii njiit yi dañuy njëkk a appliquer affaire bi après jëm si membre yi euh, ba tax na euh, chaque année aussi avant ñuy def beneen concours dañuy évaluer concours yi passé xool lan moo si manqué lan la ñu war a changé lan la ñu war a amélioré ba tax na nag chaque année soo gisee suñu organiser concours organisation bi day changé critères yi dañ koy euh, évaluer dañ koy améliorer waaw euh, loolu nag suñ ko defee day wàññi marge d'erreur bi donc su erreur yi wàññee koy parce que erreur mënul ñàkk parce que nit ku un être humain day def erreur mais dañuy fexe ba wàññi marge d'erreur bi nu mu gën a jegee zéro rek moo gën baax donc loolu moo ñuy may peut-être ñuy def ay concours yi xam ni vraiment du ma ne concours bu mucc ayib mais concours boo xam ni même su amee contestation du bëri président président toujours Baba Diaw 2018 Baba Diaw vingt baaba Diaw président lan mooy sa diggante yow ak Baba Diaw Baba Diaw tam digganteem ak éleveurs yi. waaw loolu lu rëy la lu foor la xam nga Adam euh, Saladam bi ñu ko daree def euh, bi ñu ko daree def parrain c'est en 2014 bañ ko commencé def parrain euh, te depuis boobu ba léegi arrêté wu ñu moom mooy nekk parrain. Euh, li ko waral mooy premièrement dafa def si élevage Sénégal lu kenn deful euh, parce que lu mu yor si ay jur lu mu dajale si ay jur si benn tool kenn dajalewu ko lu mu dajale si ay xeetu jur tamit kenn defu ko si bi ba pare mu teg si di si jàppale éleveurs yi Adam daf ñu jàppale wax fa dëgg yàlla euh, tey ji suñu tollee fu ñu toll nii moom moo ñu jàppale parce que bu muy metti bi ñuy ñëw sumb saladam di jéem a def lu ñu mënul biñ demee ba jaaxle moom moo ñëw jàppale ñu ba ñu décoller kooku nag c'est pas parce que décoller nañu dañ koy fàtte non soo gisee tout temps ñu koy def c'est parce que c'est pour c'est une sorte de reconnaissance pour wane lim ñu defal lu rëy la te loolu nag dañ koy manifier tant mu ngi fii rek na yàgg te wér tant mu ngi fii rek euh, moom mooy nekk suñu parrain c'est notre parrain naturel. président dañuy sumi casquette président bi ñu sol casquette éleveur bi président ban sentiment ngay am. ñu naan maal bi baayam président moo ko juddule maamam président moo ko juddule ñu naan maal bi mooy jël concours bi maal bi mooy jël concours bi loolu lan la lay def président. non mais loolu mbégte rek euh, sentiment de satisfaction parce que bon euh, dañ si sant yàlla bu baax nag ah, loolu day wane rek liggéey bu ñu def bu ñu euh, te cër bu ñu yàlla jox te lu ñu yàlla xewle la la. ah parce que kenn mënul kenn amul yàlla rek moo mën moom moo am euh, yàlla nag dafay jël tuuti abal ñu hmm? dafay jël tuuti abal ñu euh, donc ñu ñu ko si jaajëfal si lu mu ñu abal euh, bi mu ñu baaxee ñu ñël si as tuut bu mu ñu wërsëgal ñu investir ko si élevage ñu baaxee am suñu xol ñu am passion si élevage bu mu ñu baaxee ñu am xel manager suñu élevage ni mu waree Euh, ba ñu am résultat bu ñu am ni moom ñu si sant yàlla bu baax la. président noo gisee Ladoum TV. bon Ladoum TV macha allah j'ai vu que y une grande évolution par rapport au début euh, di leen di féliciter et di leen di euh, ñaax rek ngeen continuer fi ngeen teg seen tànk foofu la. continuer rek avec beaucoup plus de professionnalisme beaucoup plus de sérieux ba ngeen am une chaîne de télé télévision normale incha merci.